xanaa dañuy daal di wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di mastaw euh, famille Wally Seck yëpp tàmbale ko ci ay magam ci waajuram bu jigéen mi sama wóolare aussi euh, ak baayam mi fi jóge nekkoon wóolare wu mag ci man euh, daanaka sax wóolare bi mi ngi gën a dëgër bi ñu dajee ci kaso bi mag moom def ay weer weer woo xamante ne Euh, daanaka guddi gu jot ñoo daan nekk bëjëg gu jot aussi ñoo daan nekk ma dem ba dugg ci intimité baayam xam ci moom lu bëri mu xam ci man aussi lu bari ma partagé ak moom aussi yu bëri yoo xamante ne nit mën na ko wax ak yu mënul wax li ma mën a wax daal ci coon mi fi bàyyi ko nit ku baax la woon nit ñu nit ñi ñàkkoon a xam la ci wàllu ay valeur wàllu bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci dëggoom ak ci mën a wax dëgg aussi moom Thione Ballago sekk Wally nag bi ñu ñëwee ci moom tey jii jaale ko dama ko feddali rek baay bi ma doon ci moom euh, wax ko aussi ñu ngi taxaw ci wetam en tant que baay ak doom wax ko ne it na muñ xam ne su fekkee ne yàlla jël na wéeruwaayam mu doonoon baayam tey jii am na wéeruwaay bu gën a dëgër baayam boobu ñu jël ki ko jël moo wuutu baayam bi fi nekk mooy suñu borom moom mi nga xamante ne moom rek moom mën lépp ne fépp moom lépp te umpalewul lenn moom azza wa jal moom azza kamal donc loolu moom a indi woon tey jii ci kër gi c'est la première fois sax ma ñëw fi bugguma woon mu nekk ci tànk yi mais nii la ko yàlla dogalee fekkewuma woon aussi euh, lever euh, du koor bi parce que daf ma fekkoon bitim réew mais su ma fekkoon ndakaaru non seulement kenn du ma jiitu ci mbir mi mais daanaka dinaa jël sama responsabilité sax jullee baayam ndax li amoon sama digganteeg moom relation fusionnelle bi amoon loolu moom ma indi woon tey jii ci kër gi alhamdulilahi rabbil alamin ma ànd ak mbooloo mi ma àndal pour loolu. awoon na ay yëngu-yëngu fan yi passé uh-huh. kilifa yi diine jóg nañu uh-huh. wax uh-huh. kilifa dégg na nga aussi ban jàngat nga def ci situation boobu waaw euh, xanaa damay masawu rek ñi ci ñàkk seen i seeni i bakkan di ñaan nag ñaari camp yëpp muy camp président de la république ak camp opposition bi nga xamante ne tey le leader de cette opposition mooy Ousmane Sonko ñëpp rek fexe ba kenn ku ne ci biir xelam ci biir xolam ci biir jëfam mu indi jàmm fan yi di ñëw dinaa def une importante déclaration boo xam ne naa ko jagleel toute la presse nationale et internationale sur la situation du pays maa ngi leen di sant bu baax